cheikh bi kii li muy laaj mooy daal du bëgg na euh, ku ko dolli ay leeral ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax ni kullu bidaatin dalaala mu ni ndax loolu euh, noonu lañ koy déggee wala euh, am na ay bidaa ci diine yoo xam ni du mën a nekk dalaala wala lépp dalaala neen daal bëgg na daal faram fàcce ci wax yonent bi sallallahu alayhi الحمد لله لولي النبي عليه الصلاة والسلام وحمي كل بدعة ضلالة دي وقت يكو قن الليار دانا كسيبا من المستعم دفا الليار ناني ناني ناني بل ما خمني كوفا جيما صراحة موتو بان كل اندبل نيانا بيت بدا أزير بدا أنا بكي ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم دوح موي بدا جي ديني جي مالان لب لو خمني بان كوفا صوص جي ديني جي خمني لولا أزير ينتبه عليه الصلاة والسلام لا الله دانا كبن فيه مونا جلالنا waaye su fekkee dem nañ ba jàpp ne biddaa bu rafet mën naa am ci diine maanaam nit sos ci diine loo xam ne yonente bi santaane wu ko yàlla santaane wu ko waaye rek da koo rafetlu dugal ko ci su fekkee nit ñëpp dañoo ànd la kenn di kenn ku ne di rafetlu di dugal ma sàmba rafetlu dugal ma demba rafetlu dugal jóogu rafetlu dugal nataar kenn ku nekk lu sam xel dem nga ne lii war naa rafet nga jël rek boole ci ah bu yàggee day diine jooju kenn duut xam lu mu ndax lu nekk dana nekk ci biir ba nag ñu tudde ko diine lislaam te loolu dafa mel ne euh, xeet bi lu mel noonu bu leen jaarut itam day sori wuñ ko de kon dolli ci diine ji loolu la sharia di bañ ni nga xam ne ne wàññi gi wane ne nangam bokkati ci ñëw fekk loo xam ne yàlla da ko santaane woon nga ne loolu buñ ko defati wala na ñëw fekk loo xam ne dañ ne woon def leen bu leen ko def nga ne nan nañ koo def yooyu ñooyam manam duggal ci li ci bokk ak génne ci li ci bokk ñaar yooyu yëpp benn baaxu ci lenn lu ci nekk ak réer la kon biddaa moom munta baax ndax kii rafetlu ci xelam di duggal ci biir am na keneen koo xam ne moom dafa ñaawlu loolu kon man xel la ñu sukkandiku yow mu yor xel mi sax di rafet di ci dugal léeg-léeg dara rafet ci yow ba mu yàgg mu koy ñaaw ci yow kon xel doonut lu ñu sukkandiku di ko jaamoo yàlla manam diko duggal diko wote ay jaamu jaamu yàlla di fent ay jaamu yàlla ci xel ñaarel bi jëmmi rafetlu bi ñu waxe ne bid'atun hasana manam bid'a bu rafet la xel moom xam mën ta rafet lu bid'a muy rafet ndax xel mi saxut ci dara ki lay rafet lu kay ñaawlu ko ki lu won tay sax lu mën na ñaawlu kon lan moo tax mu rafet ndax ci diine la rafet soo ne waaw diine rafetlu na ko ñu la kon ana dalil ba ndax diine moom lépp lu mu rafetlu rek mu ngi ci alquran wala mu nekk ci sunna boo seetee alquran gisoo ko ci nga seet sunna gisoo ko nit ka di ko def nga ne ko loo ci jublu mu ne lii jaamu yàlla laa ci jublu di ca wut tuyaaba ne ko loola bidaa la te bidaa bu ak réer la ak réer la loolu rek moom moo koy leeral nañ ñi moo tax dama ne wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jooju dafa leer ba nga xam ne ku ko jéema leeral sax boo tudd faf da nga ko lëndëmal موضح الإمام ابن رجب حتى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه ما كان كنت يتبناه عن الليلي من الشاطبي صحتي الموافقة طبعا كل بدعة جوجي موخ لامبونا لب لو خمنا بدالة ديني nee عام aam la أم بن تخصيص باق على عمومه baaxin ala umumihi bépp nit ki da koo sos ci diini ji kilifa yu mag yooyu nee nañ ak réer la ak ñeneen ñu dul ñoom sax nag ñu bëree bëree bëri allah jazakum allahu xayran